الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الاصفياء الاوفياء والتابعين ومن تبعهم باحسان ما دامت الارض والسماء بقي جنابون سنتي سنبروم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 fa nit yobbu ak lu fa meuna yobbu yóbbu ñorut lislaam Fam fa koy jëlé moko ñor fam koy ke ci lay xol ba xam lu muy nangula waaw wala deet su fekke na ko ko wara jëlé su boba yam cey xolaat moy gak ya koy gakal. ndax and nak ngistal ndax and na ak aw aw moy bëgg ku la nawal sa jëf wala yow sabab ngay naw sa jëf yalla ñu ci yalla musal suñu borom subhanahu wa taala mi ñu fi indi ngir nu jaamu ko moo nu joxañ sallallahu alayhi wa sallama ci lu ñuy dugg rek ñu xam fañ cay tàmbale ak fañ cay yam sunu borom moo nu wax ci alquran jaarale ko ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne yàlla mii yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo bind suuf si tasaara ci wala yaatal ci lim ci yaatal ngir yéen kenn ku nekk bu xëyee na dem wuuti dajeeg dogalu yàlla mu jox ko lam koy jox su fekke lu wara wut la huwa allazi jaala lakum al ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an nushur suñu borom mi ngi dendale wuti faggu lu lew dendale ne ko ci quran ak jihad fi sabilillah kon wuti faggu lu lew lu am solo la ci ab jullit lu am maanaa la ku jihaat dañ daan wax rawit mën na cee jihaat bañ di dajale rek yor ab radu mel ni ku ay gëtam neexut lu ne mu rocc ko andi ko waaye nay xool fa muy teg loxoom ak la muy tànn bu ñu demee ci alxuraan dañ ci fekk wa axaruna yadribuuna fi l ard yabtaxuuna min fadlillah moy ñi fagulu ñi wuti di fagulu lew wa akharun yuqatiluna fi sabilillah ñi dañuy fare fi ñi li fété fé ndax kat li tax fagulu lew am solo lol jullit yi mas nañoo soxla soxla so xane ne ko ñak moy ku len takal ab xare te kenn yuru dara ca la sayyidna usman la yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ngeen di soxla mu wax ko ko mu daldi koy def fa saasa moo tax sëñ bu mag bi ne yonent bi fanaan na guddi lëm di ko ñaanal yàlla waxoon na ba ne sax bis ni ki tey Ousmane dara toppatu ko moom la sëñ bi di ko kañ naan bu ëllëgee yàlla dana ko digal mu romb mbooloo mu bari moo xam ne sa war a yayoon na leen kon bokk fàggu lew di ko yóbbu fa koy yóbbu mooy li ñor lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki limi jël diko def ci biram tay ñaan yàlla mu res ak jàmm mu jaamoo ko yàlla la ci gën moy lo xane moko liggey ci loxom lu lew dal la dal di joxe misal ci yonent bu ñuy wax ci daawud alayhi salam neena mom moom daawee su ko jox muy jël waye lu ma sa jëfëndiko rek moko liggey ci loxom loola nak yëmut ci soññe nga yëmut ci wala kañ rek Seydina Daawuda alayhi salaam waaye daf cay joxe misaal ne kenn ku ci nekk daa war di kaññe waaye wurtu toog rek di nekk bokk yi fàggulu lew dana jural nit yent yëf bu jëkk ba mooy dana dana musal diineem dana am lom jàpp ba mën a sàmm diineem sàmm diine nag mooy sàmm ngor ka doon jébbalu ci sëñ bu mag bi ku nekk wax moom ba muy wax daf ne jox naa la lépp ba mu des sama ngor mu ne ko loo ci jublu mu ne ko moom laay sàmmee sama diggante ak yow saa bu ma naree dëpp sama ngor ne ma yaa woon nangam euh, dana ko sàmmal diineem ba kenn du ko mën a dogale ci danga def lu lislaam di tere waaye dana sàmm ab daram ba kenn du ko joxoñ ci lee mu yor moomu ko wala fu mu ko jële laaj yu du jeex dana ko musalit ci du du rusa jàkkaarloo ak nit ñi di leen xool waaye dana ko musalit fu ko nit ñi tegoon day dolli ko waaye du wàññi ko mukk bokk yi ana ku diineem am gàkk-gàkk mooy koo xam ne saabu bu lëf ne këtt na jonn rek mën naa wax loo xam ne dañ koy dañ koy topp di ko di ca topp diine jëpp te yoonu diine gi nekku ci waaye moom moo tax ñu koy toppee diine waaye nus lu deret bu ñoŋ di jariñ it mooy dangay ngay mucc muccaale ñu bari ndax léeg-léeg ñuy joxoñ koo xam ne joxoñ ba du yem ci moom dong waaye day law ba kum nirool noo mel wala looy def rek ñu ne ca la bokk te man yàlla xam ne mën naa am bokku ca moo tax kenn ci gaay yu jëkk yi nee na woon nit dana def bàkkaar boo xam ne mën na koo tuub yàlla jéggal ko waaye la gën a gaaw ci jóge ca bàkkaar ba te du ca delluwaat mooy mu wuti ba mu fexe ba am ci lu mu jàpp tam doon lu lew su boobaa kenn dutu ko ma jox alal ju daganut kenn du ko ma def lu daganut ba ba mu cay amee alal faggul lew nag jëfandikoo ko jaamoo ko yàlla suñu borom santoon na ko bu yàgg ñam daan yónni ci nit ñi daana leen wax ne yéen ñii fexe leen ba li ngeen di lekk lew motax sa saa ne yàlla rek mune ya rab mune ya abd delu wax julit ne len de len fexe bay lek lu lew ta diko sante yàlla diko sante yàlla moy diko jamo yàlla rek fek lek lu lew sayyidna umar ibn khattab joxe na ci misal mu leer mbok yi ña andon ak yonent bi amuñu ben gak euh dañoo tambalé won ci yonent bi yam ci mom kep te luñu ñu xamutuñ ñu laaj ko ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul wax dem leen maa ngi ñëw waaye daan ay ci lañu dem Seydina Omar ibn Xataab masis na koo yët coow coow loo xam ne na mu war a mel la mel ba mu ca jëfandikoo mu ne ka ko andi woon foo ko jëlee mu naa wax dëgg yàlla nag du sama battub gàtt génn gëléem gu ne ci dëkk bi koo xam ne boroom da ko saraxe ne ku bëgg na rat gis naa mu ñëw ki fa ñuy wute ndox di junj mel ni daa bëgg ndox jamono ba ma koy rootal muy naan nag di ko wëgg ca laa ko ratte woyal ko yët la ci nu mu def ca mbooloo ma daa dem fe looju ba soow ma jax takk jax takk mu ne ko fi nga ko jëlee moomoo ko moo tax du ko bàyyi muy ràcc sama yaram am na soxna su baax soo xam ne jàkkaarloo na ak boroom këram wuute nag soxna yi nga xam ne dañuy tàllal rek ñu di co teg seen yoon ci fu ko boroom jële ak mooy kan dane boroom këram ca digg ëtt bañ doon ndéegoo diw gis naa ne fan yii reer yu baax nga fiy indi ak ndéegoo yu baax te ñun xam nañ sa liggéey ragalal yàlla ci nun bala ñoo layoo yow ëlëk ñun kat mën nañu muñ ab xif nañ ko daan muñe ba nga tambalé gu ta am dara waaye sawaraw ëlëk ma mënuñ ca muñ dara motax gaay yu jëk ya nga xamne mom dañ dan xol di settantal ku ci masna ya rab rek mun ya abd so di ci jamono ñaan ndax ñaan daa nangootut léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam leralon nako da nga gis waajo xamne ji day salaña salañ yem sol tilim lool te kat loolu dañ ciy nax dañ ci nax aw nit suñu jamono defe nañ ne ku mel ne ku dëddu adduna rek lu mu wax yàlla yàlla def ko déedéet nee na danga gis góor goo waajoo xam ne day sëqal bopp ba ba mu saalaña saalañ mu fundooñ lool du sol lu set du dëkk fu set waaye nag day dëkkatal ay loxoom ndax dañ koy yaakaar ci ñaan mu naan yaa rab yaa rab yàlla na teg dégg na ko de waaye la ko ko teg mooy la muy lekk jagut la muy sol jagut la muy dunde dara jagu ca kooku mënut a am connexion mu ngi yoon mi ngi mel ni ku yor téléphone kese boo xam ne amut piis day gis ci ñuy woote mu bëgg a woote na ñoom waaye amut piis te bu amee piis te amul lu mu wootee it du mën a woote moo tax Hasanul basri nana nee na ma nga fam nekkon ca ñam nekkon li feek du fa joge li feek demuñ sax ba bayyi yu dagan yi bayyi yu dagan yi di ca moy di ko moytoo yu haram yi ku ne dutu lek nangam ta yalla daganal ko ba nit ñi kenn dutu ku ko man na mucc ci di ko lo xamne ne lu melne la dagan la ta fekk fañ ko jere jagut abu darda nee na ragal yàlla nag léeg-léeg ñu foogee ko foo xam ne nekku fa nee na ragal yàlla fa mu nekk mooy koo xam ne kii lu toll ne fépp suuf sax xeebu ko ci jëfandikoo ko wala mu di ko jël te xamu fa mu bàyyi ko ba sax àgg ci yàlla daganaloon daf koy tere boppam ndax moytoo ko yi nga xam ne daa xaraam su ma jëlee misaal xar bëy gëléem yàlla tudd na ko ci alxuraan ne mënees na koo jëfandikoo waaye am nañu dem ba tere ko seen bopp ndax mënees naa xëy xëy indi leen ci lim boo xam ne bii ñu ko indi xamuñu fi ñu bàyyi ko xamuñu fi ñu ko jële su ko su leen wóoree nag moom du ci jëfandikoo lenn dana mucc ci jëfandikoo ca boo xam ni bii fa mu jógee jagul kon mbook nii nit di raxasoo bala moo jëfandiku wala mu dem barab ba dikk bala moo jox kenn loxo mu raxasu comme ni ñu ko fi doon diglee ay at loolu lislaam danañ ci jiitu bu yàgg lislaam nee na balaa nit kiy génn bay jaxasoo ji sax bu yeewoo rek fa mu doon nelawe yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko bala moo dugal ay yoxoom ci gémmiñam na dem raxasu ba bu ci ndax nee na xëm fu loxo ba fanaan kon lu ci nekk bu ci nit di dugal ay yoxo lu néew néew na seetlu kem kattanam ba xam ne bu ko ca jooyee doo ko ci gémmiñam bu reesee bu jaamoo yàlla yàlla nangu ko yàlla nu yàlla dimbale ba xéeg na ci nuy faggul lew saa su nekk ma fàttaliwaat ko lislaam amul soxla ci ki koy yët lu bari ñu di ko tudd mu ne gàññ lam am soxla mooy kooka fu mu ko jëlee ak ba mu koy fàggu ci lan la ko fàggu sëñ bu mag bi joxe na ci misaal mu gàtt nee na lépp loo xam ne bañ koy fàggu faat nañ ca waxtu buñ ko ko yët suñ ko ko yëtee it bu fi bàyyi ko buñ ko boole ci lim moom moomu ko soxlawu ko yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin